jaaykat ya nekkee ca marché Sandiniéry yi melna ni d'accorduñu ci ndogal bi nga xamante ni gouverneur bi jël na ko mooy tere kamiyon yi nga xamante ni ñoo war a indi légumes yi ak fruits yi ci biir ndakaaru waaye ñuy yem fële ca jëm ñaajo. voilà ñi amul doole rek torox comme ñun duñ ñu sóoraale. dañuy génn rek jël décision décision balaa nga koy jël war nga mun a waxtaan nag nit ñi dugg ci terrain bi jël xalaatu nit ñi. ah, ah dégg nañu de mais ñàkk a pekke ñàkk a pekke la. amul jële fi bagage Dakar nga soxla ko Dakar nga yóbbu ko jam ñaajo delloo siwaat ko ba Dakar pour mën ko jaay loolu loolu yàq wax la man. ñun daal loolu ñuy def noonu waxoon nañ ñu ko ci njalbeen ne ñu ñoo ngi koy def. mais à une condition que por ndaayaan bu commencé waxuñu woon ne dañ koy anticiper léegi nag anticiper nañu lu waaye nag def boppam luñ fi mënta def lu ne population bi koy subir. xam nga léegi kon dana nekk ñaari prix bi ñuy fay dañuy fay euh, bagage bi dañuy fay borom dañuy fay ki koy indi. ba na li ñuy xamle mooy mën nañoo xaarandi ab yokkute ci marchandise yi. loolu moom mënut a ñàkk yokk-yokk bi kay parce que boo xoolee par exemple lu doon ñëw ba say tànk nga wàccee même booy fay ngay nga fay ñi koy wàccee mais léegi na nga fay ñu ko wàccee fay oto bu ko andi. luy léegi tout ce qui loo xam ne ñu koy def ci cin dina yokk lépp ay yokk muy soble muy pomme muy carotte muy navet muy lépp lépp ay yokk parce que frais bu fu mu yokk rek frais bi ci marchandise bi lañ koy génne nañu xaar loolu yéen surtout maanaam nag yéen jigéen ñi nga xam ne ngeen bëgg def lu baax waxtaan leen nag suñu mbokk yi nga xam ne gouvernement Sénégal nañu delluwaat ginnaaw ci la ñu wax. nekk ab ndogal boo xamante ni gouverneur bu ndakaaru moo ko jël ngir tere accès camion yi nga xamante ne ñoo war a indi fruits ak légumes yi ci capital mu nekk nag loo xamante ni ñii di commerçant yi ànduñu ci benn yoon.